ci ci côté yëpp nag. waaw comme ni ma tox suwaat suñu papa ji waxee léegi léegi rek. Hmm. mooy li nga xam ni xew na ci réew mi. Hmm. dégâts matériels yooyu yëpp. Euh, dafa nekk loo xam ni sénégalais faa ñuy wax li nga xam ni moo am. Hmm. man li may wax tout le manifestation man jàpp naa ne amul ci réew mi. parce que kuy manifesté wu xam nga fi nga war a dem pour manifesté wu. mais tey jeune en tant que jeune yow nga da ngay wu jubal direct si entreprise jàmbur dajji ko taal ko ñii nga gis ñii di sàcc ay. portable ñi di sàcc ay écran plat dañuy sàcc ay sàcc lañ. Hmm. mais loolu lépp lu ko indi dañuy jox toor bi te moom la muy comme ñoom ni ñu koy waxee ñoom def nañ ko président te faloogul muy euh, Ousmane songo ak waa Pastef. ak waa Pastef. c'est-à-dire euh, ñun peut-être laay wax am na lu ñu ci fekkee tuuti ay xale lañ mais li am Sénégal ñëpp xam nañ ñoom ñoo ko fi indi. c'est la première fois ci histoire Sénégal manifestation am ñëpp jubali fan. Auchan magasin jàmbur bitigu jàmbur toj bu ñamoon ci toj sax garaaw mais sàcc di sàcc alalu jàmbur yi moom kon ñoom manifesté wuñu dañuy sàcc manifestation amul ci réew mi sàcc moo fi amal loolu laa jàpp. Hmm. ñoom nag bu lañ neexee ñu xoolee ko neneen wala ñu analyser ko ñu leen neex. yow da nga jàpp ne ñiy sàcc ñoom ñoo woote. ñu nekkul ah, ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo. ñoom la ah. bu ñu wootewul woon loolu daam parce que moom moo ni da ko répété cest ñoom lu ñu déglu dañoo ànd ak ñoom ki ñu àndal sax mais duñu déglu ay discours am ñoo xamu leen si ñoom comme ça bu ñu def discours yi wax ay beñe ñu dem di challenge ay weqe comme euh, ni mu solee yére bi ñu dem di challenge mais duñ ko déglu mais bu ñu ko doon déglu bu baax a baax sax dinañ si jàng lu bari mais moom moo ko wax cooki fin bi moom moo ko wax de la hmm. na ñëpp ñëw Dakar moom moo ko moo ko wax nekkul lu ñu inventé nekkul lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu wax moo ko wax gémmiñam hmm. taxaw publiquement di nga ma rey wala ma rey la ba pare lu si gën a garaaw mu ni président Macky Sall dama koy jëli ji palais président de la république. Hmm. mun nga opposé wu. parce que ñun nit kenn ko bañ ñun bañuñu ko mais jikkoom ak comportement bi muy doxalee ñun moom loolu lañ d'accordul ak moom mais tey bu yàlla rek moo xam kuy kuy nekk président. Hmm. mënoon na ñëw jër réew mi defar ko boobaa bi ñëpp lañ ko defaral parce que ñëpp ay sénégalais lañ. Macky day dem comme nit ñoo Abdou Diouf ñeneen ñeneen mais il faut ñuy dugal ci bopp xale yi man xanaa xam nga kii remplacer p laa gën a yërëm jërëm moom Macky Sall mais kii remplacer président laa gën parce que dugal nañ ci bopp loo xam ne. non dina garaw trop. luñ dugal seen bopp. waaw luñ dugal seen bopp mooy léegi manifestation bu amee jeunes yi leen rek moo nekk seen bopp ah. magasin bi am na ay millions nañ dugg dajji ko Auchan bi am na loo xam moo fa jëlee dama dañ koy jaay man gis naa ñoo xam ne ñu ngi tribunal alalu sàcc lañ leen jaay rek ay valeur 4 millions. te ñu leen ko jaay nekk billaay wallaay non du ma du ma. c'est vrai parce que dañ koy suturaal valeur 4000 francs te ñi leen ko jaay dañu ay sénégalais kenn ki malien la kenn ki gambien ñoom ñoo leen ko jaay comme moo lay wax li ñuy wax rek naan Tunkara xaw ma tam nekk si diaspora bi day financer ay étrangers yu ñëw mais day bëgg a nekk dëgg. Hmm. day bëgg a nekk dëgg parce que ñoom loolu mooy seen objectif ah yàq Sénégal. man Thierno xam na li may wax.